asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 28 février 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey fi ñuy xëy doo rek mooy yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ke ku xëy ngar daajoo nag moo di booy Kayre Boy Kayre nag moo xëy nekk ci diggante docteur Alioune Sarr ak Kayre sport réew mi di le ministre Matar Ba Kayre nag la mu xëy di def daal ne na kii nga xam ne nii daal moo di Matar Ba daal moom daal daa jàpp ne frange bi mu waroon a daal da koo joué wul xanaa kay nekk fi kan di leen nax wala boog wax leen lii te fekk na la mu leen di wax ak li muy def xëy na nam koy waxee ak nam koy defee du doon benn loolu mooy waxi Boy Kayre jëmale ci mbirum docteur Alioune ak ministre Matar nee nag li leer ba leer moom Kairé daal nee na bu nit ñi toogee nii di seetaan banque seeni loxo bañ cee wax nee na Alioune Sarr buñ ci waxulee moom ah la ñuy wax rek ñeent fukki at mën na ko fee def wala sax lu ko ëpp ndax nag fasuta yéene bàyyi tey suba waxi noppi moo tax Kairé na bu ngeen seetaanee day kenn bañ cee wax fa mu jëm ak ñun moom ndox du fa am nee na nag làmb ji li mu bëgg mooy dara ju bees teq teq teq ñëw géréwaat ko ay tet yu bees nee na fi mu nekk nii loolu moo war a am ndax moom Boy Kairé jàpp na ne ñi nga xam ne ñoo yor làmb ji ay màgget la ñu daal ay paa lañu Boy Kayre nag moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu ci yëglikaay bii nga xam ne nii moom moo di sunu làmb mu mel ni kii nag waxam jooja moom wéetu ca ndax ku mel ni bekkaay mbay itam daa mel ni xaw naa brosé wax jooja yëglikaay bi di sunu lamb ñëw na ci moom ci li nga xam ne nii mooy wax yoo xam ne wax na ko mu jëm ci moom mu jëm ci loolu waaye leneen loo xam ne mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb muy ki nga xam ne nii moo di Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye nekkoon écurie Fass nekkoon fab entraîneur demoon nag béréb écurie bu ñuy wax école Serigne Ndiaye tey jii nag moom moom la yëglikaay bi xëy seqal ay wax Serigne nag nee la ko yóbbu yóbbu daal ca papa Sow mooy papa doomam la père la koy wax tey itam lu mu mës a dugg tàggu na ko moo tax ba mu ko wooyee ngir mu ñëw jàppale ko day ñëw ànd ak moom liggéey li ko ñu ne ko ndax mbirum xaalis mu ne waaw li leer ba leer moom xaalis am na ca ndax nag weer wu dee amel nañ ma salaire di ma ko fay te teg na ca ne bu nekkuloon sax xaalis damay dem ndax cër ba mu ma jox moom papa Sow ak ki nga xam ne nii moo di père ba ñu ne ko est ce ngi liggéey ci loo xam ne nii mën naa daan Siteu mu ne bu baax a baax a baax fi mu nekk nii moom sunum xel dal na muy laay njombo rek latoog Balla Diouf ne na ñun ñëpp nu ngi am di xool ak di xalaat fi ñuy jaar ba daan Siteu te ne itam loolu moom fi mu nekk nii seenum xel dal na ca bu baax a baax ñu ne ko waa école ba nga ubbi woon nag mu ne école ba moom ay nit a ko ubbi woo ma ma ñëw ñu tudde ma ko sagale ma ko am na ay nit yoo xam ne nii ñoo ko yor di ko doxal waaye nee na moom mënta yàq ci la muy def dara mbër ma nga xam ne nag moom lay tàggat moom di Papa Sow Papa itam xëy na tey di wax ci li nga xam ne nii daal moo doxoon ci digganteem ak Siteu wala boog sax lu jëm ci mbirum CNG bi Papa Sow daal daal wax na li leer ba leer daal ak itam sponsoré nee na boo xoolee muy ñi nga xam ne nii ñoo sponsor français yi wala société français yi ne ci réew mi di jël xaalis réew mi moo xam total la wala Eiffage te bàyyi fii ñoom ñaari société yooyu ak yeneen yu mel ni ki ñoom muy total ak waa Eiffage bi nga xam ni ñu ngi ci réew mi di ngacc xaalisu réew mi di ko yóbbu te itam du ñu jàppale sportu réew mi wala sax jëm ci réew mi nee loolu des ko war a xoolaat waaye itam ñëw na ca la ko boole nag affaire banditisme papa soo mooy wax de te nee na kere bu ma téewu kon sama bopp mën na contrôler sama bopp nee na kon leneen mën na faa am ba tey papa sow mooy wax ñëw na tamit ci mbirum lii nga xam ne nii moom moo di CNG bi jàpp na ne daal seen wàllum organisé la ca war a jëm kay xanaa sax ci wàllum lutte olympique ak yu mel ni kii noonu yeneen discipline waaye leneen la ca des moom daa jàpp na na ñoom du seen sax cër ñu war caa taxaw naan dañu koy organiser ba tey papa sow moo xëy tey di wax ci yëglikaay bi leneen loo xam ne tamit dañuy dellu fa nga xam ne nii moom moo di ca sunu làmb fekk ko fa muy guy gi ma nga xam ne nag dem na États-Unis d'Amérique ngir fas yéenee lan liggéeyi yokki dooleem xam naa préparé combat yëglikaay bi xëy na tey ñëw dinu ko wax keneen koo xam ne nii moom daa xëy fëgg ci taabal ji muy xalifa ñaa ma nga xam ne moo jiite écritage si nga ba ëma seen nekk xalifa ñaa nag Moustapha Diop lay waxal dana ko yow Moustapha Diop tëgg nga sunu combat passé na sunu vingt cinq millions yi nga nu yoreel génne ko nga jox nu ko xalifa ñaa bu taay si nga moo xëy tey ci yëglikaay ba di fa wax mel ni ki tamit koy gis muy ay combat yi a tar ci weekend bi nga xam ne moom la jëm diggante suñjata ak ka nga xam ne moo di kéwél Ibrahima Mbaye moom nekk écurie Fass daa jàpp ne favori amul foofa bu dee diggante tigoo xaritu yaayam ak booy Dakar konaate di ab entraîneur nekk kaay baax konaa daal la mu jàpp mooy kii di tigoo mooy favori ci kanamu booy Dakar waaye ka nga xam ne nii moom moo di yoro seen di ab coach su moom tamit nekk jari Birama Thior moom it ñëw na ci li nga xam ne ni mooy diggante ñagas ak nga xam ne nii mooy caatu waalo physique moom ah manes na ko fànnik kon daal jàppal mu mel ni kon weekend bii moom nar na tar lool lool lool ndax nag promoteur yi ñu nga ca waaye loo xam ne nii itam ñu ngi koy waajal mu war a am ci weekend bi mooy 1200 plus rock mbalax yi mu mel ni ki nag moo xam Leewtoo TV la wala Leewtoo point net fu nekk rek roka fa ak ay xibaar lu jëm ci loolu nga xam ne démb ab conférence de presse la ci woote woon ca bureau Leewtoo ya di fa wax nag la mu ca nar ak nam ko fa yéenee liggéeyee moom rok ma lax dafaa géey mu nga foon ne na moom mooy meetaram lu nekk ci moom daal moo ko ci def bari na bokk la mu def ci moom dimbali na ko ak ki nga xam ne nii moo di Alioune jon nekkoon fi entraîneur national ak yeneen i borom xam-xam yoo xam ne daal ñoo war rok ma lax ci 1200 prise am yooyu nga xam ne nii ca la jublu samedi ji nga xam ne nii mooy nekk nag cérémonie de lancement ba mu mel ni ko woon foofa daal itam nar naa yëngu ba nga xam ne nii dana yëngu lool koo xam ne nii moom dan koy ñaanal ci samedi ji muy bombar ji bombar Bombardier itam daal yëglikaay bi di sunu lam xam la ñu ne day depuis àllarba la dem nag ngir fa nga xam ne nii mooy ci Angleterre ngir combat MMA ba nga xam ne ni moom la war a jongante muy ceinture boo xam ne day bu mag a mag la moom lay xëccoo ji kon daal li leer ba leer moom bu yeboo rek ñun ñëpp ñu jag yor sunuy kurus ñaanal Bombardier yàlla may ko ndam ci MMA ba waaye beneen promoteur boo xam ne nii mooy Mouhamed Diop borom Mohamed nag ba mu jógee ci diggante soq wala boog diggante jetli ak ka nga xam ne nii moo di li ka nga xam ne mooy jamtéeri bu kayaar la mu indiwaat nag mooy Youssou Ndour école Balla gay di doomi Balla gay ak ki nga xam ne nii mooy bébé julde école Cheikh ba mi ñu fi daanoon bërki déem mu mel ni kon combat ba itam nag léegi nag moom taxaw def na ko kon daal daa mel ni promoteur yi fi mu nekk nii seen yaram tàng na wax nañ dëgg bu dee combat VIP mënoo koo am nga dem ci yu ndaw a ndaw yi coon sekk waxoon na ko noon na jën yu mag yi jeex na yabooy bee fi des ku giiroo di nga fot lañ leen di wax daal bu kenn giiroo ku ne jëlal la nga àttan rek su ko defee jàmm ne ñooy mbokk waa Leewtoo TV ñu lay nuyu di leen gërëm leen sant Babacar nga àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu arène Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar si àjjuma ji. maa ngi lay fay Ndeye Coumba di la delloo ziar di la nuyu di nuyu internet yi di leen ziar si àjjuma ji di leen ñaanal jàmm di ko saaku si ñoom bu baax a baax. Amin Babacar nu commencé nag ak euh, sunu laam sunu laam dafa xëy dala ki nga xam ne mooy Boy Kairé euh, nekkoon euh, chef de file écurie Soumbédioune moom dafa xëy nag sànni ay xeer yu rëy ki nga xam ne moom mooy Mataba nee na Mataba jéewul frange après assises yi mooy rencontre yu amoon ak acteur làmb yëpp nee na nag suñu nit ñi xoolee nag Alioune dina fi def 40 ans fii nii si kaw CNG nee na nag làmb ji dafa soxla ak ay nit ñu bees teg nañ si leneen nag nag waa CNG ñu fa nekk ñëpp ay màgget la ñu Babacar waaw mu mel ni kon Boy Kaïré daal tey moom xeex ba mu daan xeex ba tey jógu ci kan yi làmb ji dañ ko war a teg ci yoon dafa war a nàngam sangam ba tey lool la parce que euh, comme nee na Matar Ba le ministre bi ñu jógee ci Aziz maanaam li nga xam ne moom la waxante woon ak gars yi na na ko waroon defee defewu ko ni ah loolu nag euh, xëy na ñoom ñi nekkoon ak moom ci Aziz wala ñoom ñu seqoon ak moom mbiri xëy na bu ko waxee am na fu mu ko teg waaw kan yi tamit CNC bi dañu war a soxla nañ ay yu bees waaw loolu moom dañ naan ci benn côté dañ ciy ànd ak moom parce que lu tax mooy tamit mbir mu mën a doon même boo dee liggéey bi bu fekkee te la ngay liggéey sax amul nit ñi njariñ mais bu yàggee ba yàgg ba yàgg rek xëy na da ngay dem ba benn moment nit ñi dootuñ gis sax yow sa njariñ yaa ngi dégg xëy na loolu moo tax actuellement coow li bëri ci mbirum CNG nañu dem ak nañu indi ñu bees ak ñooñu yaa ngi dégg àddina nag moo tëddee noonu pouvoir bu mu mën a doon wala yu cër bu mu mën doon boo ko yoree ba benn moment bi dafay baax xëy na tamit nga bàyyi ko dem ñeneen ñëw doxal ko loolu yàqul dara waxuñu ne nag seen nekkin fi mënuñu li ñuy def wala nangam parce que tamit lu la waay waxati waxati bi ñu fi tegee docteur Alioune Sarr ak équipe am na lu bare bare bare lu ñu defar ci làmb doonte defar lépp jëkk yombul waaye daal xam naa ne actuellement moom nit ñi soxla nañu ay tête yu bees ci kaw li nga xam ne nii moom mooy kuréelu làmb ji ngir xëy nañu gisaat yeneen doxalin pour que leneen lu bees mën a ñëwaat defe naa ne ci côté yépp ko soxlaa Babacar nag ki nga xam ne moom mooy Serigne euh, nekkoon na ancien lutteur nekk léegi directeur technique jàmbaar wrestling academy mooy écurie euh, Papa Sow boobu moom nee nag léegi la moo tax mu rejoindre écurie boobu nee na coloré bi mu sekk ak Papa Sow Papa Sow sax père la koy woowee te nee na moom nekku rek coach noonu nekk si bénévolat nee nañ ko proposé chaque weer sayram Babacar waaw Serigne Ndiaye day loolu xam naa ne daal xam naa ne ci wàllum jàngale bëri ak encadré mbër moom am na lu mu ci xam wala am na lu mu ci mën defe naa itam loolu mu wax itam ah nit ki moom bu la joxee cër doo mën def lu dul delloo ko ko su suma koo xam ne xale la nga mat ko way jur te mu jox la cër lu muy dugg tàggu la di la wooyee père yaakaar naa itam kooku su la wooyee ci lu mu ne war nga ko ca mën a fekk si bu dul dara la ca des mooy tamit nga nekk koo xam ne ni da nga am xam-xam di joxe sa xam-xam yaa xam naa itam bu ñu la dee fay weer loolu xel da koy nangu kon daal ñu di leen ñaan rek seen ànd boobu yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla def ñu ànd ko ci dëgg te yaakaar naa suñ ko àndee ci dëgg itam te yàlla rek tax rëccu mën na cee bañ am ndax ànd bu dëgg lal yàlla rek tax ñu ànd ànd ba lu ñu man taxee même bu ci xaalis dee dugg itam xaalis ba du ko yàq ak lu ci loolu nag lañ leen di ñaanal di ko ñaanal doomu aadama yëpp si ànd ba mu mën a doon Babacar tamit journal mi ngi xamal Khalifa Niang président écurie Taïchinga moom nag dafa génn nag di araftu ki nga xam ne moom mooy Moustapha Diop nee na la nee na ginnaaw bu ñu bëree nag euh, combat royal boobu diggante ak Modou Lo nee na ñoom daal waa Taïchinga ki nga xam ne mooy Eumeu Sène mi ngi laaj 25 millions Babacar ah waaw lu doy waar la de xam nga loolu moom déeme na vingt cinq millions moom dafa tuutiwul waaw kon nag tay xalifa ñaa moo génn wolof nag daf ne naan day faral daam wax ku bëgg a dee wequ xam naa looloo tax xam naa dañoo sës moo tax ñu génn wax waaye encore une fois rek wax nekk làmb ji li ñuy wax la rek wax naa ko sànq ku mënti ñëw di promoteur di tëgg ak loo mën di tëgg xoolal li nga attan nga def ko waaye bu la jëkkante yóbbe ci yenn yi bu la bëgg tur yóbbe ci parce que des fois après la mu lay jural du doon ma mën na doon eh, comme yu mel nii te loolu yéene wuñ ko benn doomu aadama li koy waral nag làmb dafa nekk terrain boo xam ne nii mën nga maîtriser nin maîtriser mbirum ay ay ay ay ay ay ay showbiz ak yeneen ak yeneen mais lamb maîtriser ko dafa am temps bu mu laaj boo ci war a def am ñoo ci war a àndal mais nag vraiment bu ñu sañoon tamit lii du ci am ndax Moustapha Diop dafa ñëwoon pour bëggal sénégalais yi combat bi ñu bëggoon la ñëwoon tëgg ko xëy xëy na tey bu ñu demee ba ay toppante di ci am ak yooyu yooyu du ñu gënal xëy na itam mbër itam boobu ba tey ñu ngi toog di muñ xam naa dañoo dem bës bësës moo tax tey xalifa ñaa génn wax ki nga xam ne mooy euh, Jamon Evans nee nañu taxawal na fii si sunu lamb euh, sunu lamb mi ngi ñëw wax ni inform jox information comme quoi euh, promoteur Jamon Evans taxawal na Bébé Diouldé ak Youssou Ndour Babacar depuis démb. waaw waaw muy Mohamed Diop moom xëy dimanche passé moo ñu indiloon combat bu neex diggante Jëtle ak Jam Téeri yaakaar naa moom tamit xale la boo xam ne ñëw na ci làmb di def ay di dox lentement ndax kera waaw ku ñëw ku ñëw arène nationale dimanche passé di nga xam ne tey làmb dëgg am na fi ci combat yu ndaw yi ba combat mag yi tey bu ñu xëyaat te mu indilaat ñu bébé julde boo xam ne ci defet la jóge ak Youssou Ndour bi nga xam ne mu ngi ci lancé ay victoire am defe naa loolu tamit beneen combat espoir la boo xam ne nii neex na trop ñu koy ñaanal yàlla rek noonu mu ko sumbe yàlla na ci génn alhamdulillahi rabbil alamin comme lu may wax promoteur bu ci daal la nga dugg yàlla na nga ko réussir ba gis ci sa bopp Euh, Babacar sunu lam aussi mi nga xam ne ki nga xam ne mooy guy yi neñ dem na États-Unis pour préparer saison bi na ma xamul na saison bi na lu muy préparer na saison bi parce que ñeenti weer si des Babacar ah waaw doy na waar xam naa daal est-ce que guy gi nam moo États-Unis maa ngi lay nuyu di la ah série B bi <laughs> borom cene ba waa dem na États-Unis d'Amérique xam naa ne ah xëy na itam wax na dëgg wolof ne na ah daas fanaanal rek waaw xam naa loolu looloo tax mu dem pour xëy na parce que ñu ngi ko doon proposé ay adversaire xëy na yàlla mën a def mu am combat ci saison bi loolu tamit day baax nga dem fi nga yaakaar na xëy na boo fa demee di nga a yokku dara pour a a sa combat parce que Gouye Gui yaakaar naa tam mën a dem États-Unis te itam yaakaar naa bokk na ci dëkk yoo xam ne nii tey am na lu fa mbër yi di jëlee ci wàllum liggéey ak wàllum xam-xam te loolu dafa am solo ci nit da nga war di voyager quoi waaw suñu jógee suñu laam nañ dem fi nga xam ne mooy record record na dafa xëy dala ki nga xam ne mooy euh, papa sa projet adversaire Siteu nee na moom daal lu ma expliqué na nag si biir euh, journal bi si xalima Abou Nour la moo xewoon keroog euh, si face à face bi moom ak Siteu foofu si Marius Ndiaye moom daal lu ma gis neen daal làmb sport la mais du mbirum banditisme Babacar loolu nag Papa Sow moo ko wax. waaw sport day banditisme amu ci yaa ngi dégg sport moom sport la xel ki koy def xelam dafa war a sell yaramam sell pour nga mën a pratiquer sport ndax la ngay liggéey ci effort physique il faut nga nekk nit ku licite pour mu mën la amal njariñ waaw kantaan nag digganteem ak Siteu li ma ci mën a wax mooy ñoom ñaar ay frère lañu. yaa ngi dégg ay mag ak rakk la ñu ñoo bokk Sénégal Siteu am na méritu làmb parce que li tax mooy xale la bi muy dugg ci làmb yaa ngi dégg ñu bari sa xalaatoon ne ne est-ce que dina yegg fi tey fexe na ba bokk ci mbër yi nga xam ne nii ñu ngi leen tudd ci làmb par rapport ak bëreem par rapport ak encadrement par rapport ak itam fullam ak faydaam yaa ngi dégg kon yaakaar naa ne loolu mooy li ma mën a wax ci Siteu bu dee la côté Papa Sow la defe naa ne sérieux ak yarute itam nit ñi xamel nañ ko ko yaa ngi dégg loolu defe naa moom la ko ñëpp di waxe adversaire am sax Siteu wax na lu mel ni ki noonu estime bu ma am ci moom kon defe naa wax yooyu ñu waxante woon te muy lu luy dëgg bu ñu ko yàq ci loo xam ne nii lu ko jarul la mais nag seen waxante ci wàllum adversité loolu man gisuma ci lu lu lu lu garaaw waaw non gisuma ko fa parce que li am moom solo mooy ay adversaire lañu dañu ñëwoon ngir taaral bis bi xumbal bis parce que lañu soxla ci làmb làmb dafa war a am ay waxante ay nangam sangam xëy nag am na yoo xam ne mën nañ ko cadrer ba mu bañ ëpp bañ a jéggi dayoo war a yëngu dafa war a xum te ci yoon woowu la nekk Siteu wax dëgg yàlla xam naa ne euh, ci li ma xam nit bu yaru la Papa Sow kazalika naka noonu kon defe naa itam promoteur bi leen jox xaalis bi joxu leen ko tamit pour ñu croiser les bras nii rek toog déedéet dañu bëgg ñu yëngu-yëngal waaye lépp ci cadre sport mu bañ am violence bañ am wax ju ñaaw bañ am jëfute ju ñaaw mais nag ci cadre sport rawatina ñoom ñaari mbër yi ko seq buñ ca yeggee la 5 avril lu waay man def si sa morom bu arbitre génne seen diggante Babacar suñu nu nekk ni amoon na nag gan bu rëy ndax euh, ki nga xam ne mooy Rock Mbalakh mi créé euh, benn événement mu tuddee ko les mille les mille moo doon def nag point de euh, na la moo ko la moom mébét les mille de de de Rock Mbalakh ñëwaat na aussi si carrière ñëw na aussi si diggante moom ak Giri ak ki nga xam ne moom mooy Moustapha Guèye Babacar mu wax ne nag mille deux cent na seeg ak Leewtoo ànd seeg Lutte TV ak BM BM TV bu bekk kaay waaw Rock Mbalax démb ñëwoon na fi ànd ak Moustapha Guèye ñoom Aline John ah ñi ko bëri ñu ko ñoom mbay Diagne menaat si ñëpp andi ko mu am lu mu seq ak waa Leewtoo ci 1200 prises yi nga xam ne waa Leewtoo ñu ngi ko ciy jàppale. ñu ko ñaanal yàlla 1200 prises yooyu lim ci bëgg a wone yàlla na ko réussir ndax itam xam-xam xawma ci la bokk bul ne rek yow Rock Mbalax li mu wax mënta ne non non non. da ngay bàyyi ba mu ba gis am nga droit nag xalaat ne est-ce que lii naka la war a mën a nekk waaye amul moom d'accord ma ci yaa dégg moom boromum xam-xam la te itam pra def na réew yu bare bari ci ni mu ko waxee ci wàllum làmb am na lu bëri lu mu xam ci wàllum bëri parce que bëri du Sénégal rek a koy def addina bi yaakaar naa bëri na réew yoo xam ne nii foofu dem bëri am na fa te réew mu ne am na ay prise am am na ay tudd kon yaakaar naa ne daal suba ku ñëw ci allée du centenaire bi place Vieux Seng Fay da nga gis ci rok mbalax loolu leneen loo xam ne nii gisoo woon ko mais bi li ci gënoon neex toogaayam ak Tafa Gueye ak Aline Jonn diggante ma giri tamit ndax ku ne xam ne ne diggante giri ak rok moom ñoo bokk Medina bokk koñ te li tax giri dugg écurie rock mbalax participer na ci lu bare bare bare bëri Babacar nu fàttali nag événement bi 16h lay commencé jeex 22h dina am lépp simb yeeg way yeeg ak les cent prises de rock mbalax nu jeexlee aussi ak Leewtoo point nag ñuy xamal ne ki nga xam ni moom mooy liiru jaan mi ngi si États-Unis sa xarit Babacar. waa sama xarit Lirou waa liiru ndeysaan le monument de Guédiawaye magi Balla Gaye de magi Lac de Guiers de borom way Lirou ñu ngi lay nuyu di lay ziar waa loolu tamit lu ñuy kontaanal ndax liiru yaakaar naa ne tey euh, xam nga làmb am na ñoo xam ne mën na leen fay ay millions mais am na ñoo xam làmb tam mën na leen fay nit ñi fay leen leneen ak leneen liiru xëy na loolu la ko yàlla fay tey nekk na mbër bi nga xam ne nii xëy na ci kasewu làmb amu ci lu ñuy coow mais nag wax dëgg yàlla tey bokk na ci ñoo xam ne nii ah làmb dañ koy bàyyi xel ndax yaakaar naa communication ak itam saf xoromam ak it ni muy encadrer ay problème defe naa nag xol bu sellee rek nga yéene nit ñi jàmm yàlla moom dañ na noppi na xëy na foofu mu nekk ci États-Unis ñu ko ñaanal yàlla la ko fa tax a dem yàlla na ko réussir mu di nuyu tamit ay copains ku mel ni wulli ndax ñoom ñaar ay doomu ndey lañu wulli maa ngi lay bëggee baax de la nag sa sa sa copain ba sa seexandoo ba de dem na États-Unis xam nga da nga koy toppam déet mais di nuyu Lamine bu Lutte TV ndax boo nee wulli ne liiru jaan i faut nga ne Lamine ne Babacar ndax loolu yàllaa ñu boole ak ñoom quoi ñuy suñu ay waay di wax ne daal loolu lu neex a neex la Babacar nag si kàddu leen di tàggoo leen jox euh, dig daje leen incha allah mais balaa boobu may nuyu suñu yaay mère Sow ki nga xam ne sama doom bi Mouhamed Diouf di ni Astane déjà vraiment chéri Khadija Diallo nuyu samay bourchu maam Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne mooy sama xarit grand Fallou di nuyu euh, Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fallou Diambagan Papa Cité nuyu Asek chéri Khoudia Seck depuis itali euh, ki nga xam ne mooy Aliou Ndiaye depuis Italie aussi yaa ngi si biir Babacar. waaw Saliou Khoule laay nuyu man borom si FM Saliou. macha allah yaakaar nañ ne si malax mi nga mën waaye ku la topp guddi àjjuma dina xam ne yow paaka ñaari boor nga gis naa bi li nga def ci guddi àjjuma ji yaa ngi dégg ma koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu tamit nitam xaritam di def katu lu baax muy Mamour Kandji borom social yi Mamour maa ngi lay bëggee bu baax a baax di nuyu Amdi Moustapha borom iPhone yi ABC doomu ndeyu Saliou Khoule maa ngi lay nuyu ak kan Omar Tawa moom tamit ci asalem maa ngi koy nuyu di nuyu coach Moussa Diop yaa ngi dégg seen zim bu nekk seen TV moom tamit di nitu Saliou Khoule kon daal nitu Saliou Khoule maa ngi leen di nuyu tey ak Seck Seck Apple ñi ma xam ak ñi ma ci xamul ñëpp ku ci ne rek ah ak Laswana ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak ki nga xam ne nii moom moo di ah suñu xale bu yaru boobu tamit maa nii bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di nuyu képp koo xam ne ni daal yaa ngi bëgg Leewtoo TV à travers le monde ñoom Mame Modou Gueye Cheikh Bass Khadiros tuuti Yaay Sarr fàttewuñu kenn ñeneen ñëpp jàmm Jibi Bamba yàlla na sa jàmm yàgg Serigne Ndiour ca Italie Fallou Nia depuis di ñaan sa senegal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin Babacar ba làmb la de ñaari xale la. waaw ah, dañoo war a bëre ba tàkk bay laal fii liggéey. yii <laughs> gàmmu lam daan def bu mu ko bàyyi rek. gàmmu sox.